ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر الحمد لله العالمين yi xam naa li may bëgg a ñaan yaakaar naa dangeen sawar ci may ma ko ndax dafay am daayira yu fi yàgg lool ma bëggoon nag daay yi buñ ñu wooyee ñetti daayira ñuy bàyyi njiit yu ñuy jiitu su ko defee bu ñëwee jébbale ñu mën leen a tontu waaye ni ma ko gisee buñ ko ni toppee dog mën naa jot te daayira yi duñu àgg te am nañu fi yàgg loolu kon bu ñu tàmbali rek ñu mayee ñu ko noonu ñu yëkkati ay kàddu nag yoo xam ne dafay jëm ci njabootu sëriñ Bassirou saar jàmm sëriñ Touba ndax ñoom yaakaar naa ne ñooy ñi nga xam ne ñooy organiser les xadar yi ñi ci des ñun ñëpp dañ leen di jàppale waaye ñooy borom bis bi ndax yàlla mooy boole moo boole soxna May ak sëñ Basiru saar boole goo xam ne it sabab ba lépp sëñ Tuubaa la loolu yaakaar naa ne meen ngeen ko mooy ba ko sëñ Fàllu waxee na ko danga nga dem ba ci rey ay gëléem ñaari ginaar yooyu mu tàggaloon sëñ Fàllu moom la ko soñ Basiru saar di jéem a fayal sëñ tubaa taxoon mu ne ko ginaar gu ne dinaa ko def junni loole ba mu ko fasee sëñ maamoon toogal tuuti rek ñu àggali ndax xataayu daayira yi ma moomee tuuti loole ba mu ko fasee mosu cee dellu ginnaaw ba yàlla dogal mu dem di ci rax ay gëléem ak ay nag léegi lañ fi indi ñaari gëléem ñaari gëléem yooyu rek boo ko dugaloon ci ginaar ya ginaar ya mën nañoo jàpp ne mën naa mat juróomi junniy ginaar kon jëf la joo xam ne ju yàlla gërëm la te boolewuñ ci ay wax saa yu ñëwee jébbale rek dellu nañ di wutiwaat leneen luñ jébbalewaat kon sëñ Moustapha yàgg mbooloo mii nga àndal jóge ci sëñ Moustapha soxna su nee ne mi ngi dolli ay ñaan ndax ku dem barsàq li nga gitte gën a ittewoo mooy bàyyi nit àdduna mu lay ñaanal wala nga bàyyi fi jëf ju baax joo jëfoon kon mi ngi ñaan yàlla muy dolli ay ngërëm ak i ci sëriñ Basiiru Saar te defal ko ñaari doomam yëkk ñu ko wutu di sëñ sang ak sëñ saaliwu yàlla na leen sëriñ Basiiru Saar uuf ci kanam sëriñ Touba waaye ci wetu soxna may Maymuna sëñ saaliwu mii fi toog sëñ Moustapha mii fi toog yàlla na leen wuutu at yu sut yéen ko wuutu ay atam sut ati sëñ Basiiru Saar te yàlla yokk ay xéwalam te jaarale xéwal yi ci njaboot gi bu ñu wax njaboot gi mooy taalibe yi ndax xam na ne jëf ji kat nii mu mel bu ne melee rek te yàlla ak taalibe yi la waaye Sëriñ Tuubaa daana wax ne nit ku ne pas-pasam ci man na koy xool ci ña ma ko booleel soo amee pas-pasu lu mu liggéey jox ma ko taalibe yi ma wóoli leen ba lu ñu am moom lañ koy yéene waaye boo dee kilifa gu nanguwut jox Sëriñ Tuubaa dara yàlla taalibe yu ñàkk pas-pas rek la lay booleel duñ la nangoo jox dara sëñ tubaab moom lu ma la jaral rek lay wax boo ko nee nangam nga ma jaral ma la fabal njëggaa ngi noonu kon nag sëñ Moussa yàgg sëñ Andi sëñ Imaam soxna su nee na xolam sedd na ndax fii miin nga ko miin ngeen ko it di fi ñëw di fekk soxna Maymuna ak Cheikh Abdoul Ahad ba yàlla dogal ànd boobee suñ borom woo leen ñu dëkk ak moom ngeen ñëw di fekk soxna Bali. ba tey jii rek soxna May ma ngeen fi doon fekk moom ngeen fi fekk soxna Bali ma ngeen fi doon fekk moom ngeen fekk ndax diiney lislaam kat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la wàcce woon waaye Faatiha ja yonent bi jàngoon ba tey jii moom lañuy ñuy jàng baamu rek lañuy def te ku julli jàngoo ko sax julli du baax kon wuutaat yàlla ko santaane doxali ne àddunaam wax ne mbër mu ma samp di la liggéeyloo ba sa doole jeex ma sempi la sampaat mbër mu ndaw mu wutu la loole nag mooy toogaayub soxna Astou bii kon soxna Astou nee na mi ngi leen di sant mu ngi leen di gërëm di leen ñaanal ci barkeb mag ñooñee lépp luy seenu bëgg yàlla na leen ko yàlla defal teraanga yàlla bu ngeen tàggooti ak moom ak wér it na leen ko yàlla may ak wér di yàlla leen ko yàlla xañ lépp luy tax ab taalibe mën a liggéeyal sëriñam yàlla na leen ko yàlla defal ci barket soxna may Maymuna darajay jaamu sëriñ Touba nee na xolam sedd na jërë ngeen jëf waaw waaw mooy nga ñaan leen ñu dem ba ngoon def jilatul ليلة القدر خير